jaayal sama gars yi rab bu nooy bi rab bu dëgër bi waaw loolu mooy politique gaal seen quoi yàgg na ko umpul kenn tey jii boo demee États-Unis fu mu ne nii gémb ma ngay gémb ma ngay yëngu quoi Drake versus euh, Kendrick Lamar Drake versus Rick Ross versus Metro Booming Seinfeld euh, Chris Brown versus Quavo mais li may jàng foofu noonu mooy maanaam tey jii boo xoolee kii euh, Drake comme ça nu ngaa ko blend la day rap di def variété affaire yooyu noonu quoi yoo seen Quavo gi nga Migos seen kii bi ñu gars yi ne mumble rap bi ñoo ko fendi mais boo xoolee tey seen dis seen seen seen kii bi euh, seen seen seen bifi seen seen seen seen clash nii ñoom ñëpp bu ñëw di clashante ci rap bu dëgër bi lañ koy def donc ñoom ils sont bien conscients que ne dafa war a dëgër quoi lii mooy jeunesse rap quoi man rap dafa war a ñëw dénoncer rap boo bëggee rap dëgg ci biit yooyu nga koy teg quoi ñëw dóor isinfil mais bu dee euh, kii pour dund isinfil pour di rek day variété yaa ngi mais pourtant mën nañu rab donc li ngay jàng ci loolu ay rab bu dëgg rab bu nooy maanaam tey ji rab ko blende xam nga ni boo ngaa a tax xulóowuñu yoo noonu quoi mais ngaaka dafa mën rab mais pour vivre ngaaka lay obligé mu def loolu noonu donc débat loolu lay demee quoi même aux États-Unis gars yi xam nañ mooy rab bi bu ñuy clashante si loolu la ñuy jël tu vois direct back to back la indi woon Isaac mook mig gis nga bii ñëwaat na Isaac euh, Chris Brown mu indi euh, Weaklings mook mook Quavo Quavo ñëw tontuwaat bu dee Rick Ross day ñëw indi Idols Become Rivals mu clash Birdman Isaac ñëwaat bii indi Champagne Baby ah, xam nga Champagne Baby xam nga nu doon bi clash direct donc xam nañ lan mooy vrai rap mais pour vivre Isaac dundal sa njaboot tabax kër yor oto yu rafet yi ndax public bi dafa a parce que public bu wow bi bëriwul Saint-Ville mais booy ji jigéen ñu dem concerté ñooñu pour nga laal leen il faut nga def ay variété def loo xam tey ji maanaam day attractif ak booy ak yoonu donc loolu laa ma lu may jàng si classe u États-Unis bi que maanaam ji le problème est part